xam nga euh, wax jooju mm. man maa gas ba mu xóot mu jël ko suul mm-hmm. cest wax bu suuloo cela veut dire a baana di bambara bi jeex na tàkk soo bëggee yenn détails effectivement à travers une émission d'ailleurs je félicite euh, DJ Yves mm-hmm. il a eu l'intelligence pendant que mooy interviewé xaw ma message lu yónnee sa neex wax ko ne ko grand bi day mi ngi fi alors dama bëggoon nga dugg sa neex daal di dugg mhm. euh, bi sa neex duggee mu ne ko euh, sa neex mu ne ko waaw mu ne ko grand bi mi fi sa neex def lu baax nuyu ko moom nuyu mbay nuyu ndaw si toogal fekke émission bi mhm. jour boobu laa ko mës a gis alors mu ne ñoom ñëpp ma jaaree la ko ci grand boobu di ko jox mu yàggaleen ko xam nga loolu yëpp c'est bien mhm. mais fi nga xamee ni waruloon ci moom nettali xuloo dañ naan xuloo la waaye na ma jéggal duggewuma pour xuloo di am walla ñuy dellu wax naa léegi na la gas naa ko suul mais dafa am lu ma remarqué mhm. ci bés boobu moo di waat yi dafa bari woon waat waaw mhm. waat li mu doon waat euh, yàlla na samay doom nangam yàlla kii dem na ba wane ni moom euh, tijaan laak yooyu yëpp yooyu yëpp motu ko woon mhm. problème bi benn problème la amee ngeen ko xaalis wala amelu den ko waaw ameel nañ ko incha allah dugal nañ facture bu génnee nañ ko fay c'est tout mais waat yooyu wax fi nga bokk sama bët dafa ti mujjee kii bi ma dégg déggee grand bi wax te yàlla mu ngi man waxaluma ko mhm. waxaluma ko xam nga ñoo noonu di waaj nodd ci jàkk ji mm-hmm. donc su dëgg su dëgg laa la wax te kii vous pouvez visiter toutes les vidéos mm-hmm. vraiment ñu def ci man réclamation sax defoo ko ah, toutes les vidéos boo ci seetaan damay wax ni mu demee mm-hmm. bi ñu tourné wiiri wiiri mhm. Cheikh Ndiaye moo ñëw gis ma dama euh, tonton ma ne ko mu ne ma am na beneen téléfilm bu ñu tourné te boobu dama bëgg vraiment nga bokk ci ma ne ko ah bon mu ne waaw ma ne ko ma am ba pare ci wiiri wiiri donc vraiment y a pas de mhm. ni ni ko Sanex waxee dëgg la n'a même pas parlé d'argent mhm. parce que pour man comme maa ngi tourné wiir wiiri ce sera dans les même conditions mhm. waaw mais discuter wu ma sax affaire contrat ak ñoom parce que beneen produit la euh, bi bi bi bi ma Cheikh waxe loolu bon donc ñoom organisé wu nañ dama mhm. tourné fii en ville ci euh, Liberté 6 bi tali bi xamatu woon ban kër la hmm. mais foofu lañ dem njëkk a tourné foofu ñu jóge fa yóbbu ma mbuur may leen li ñuy lu mu tudd ñu ne ma Diamond House man je comprenais même pas Diamond House parce que c'était la première fois ma dégg loolu titre hmm. boobu bon bi ñu loolu le problème bi li indi xam nga lan hmm. Diamond House boobu pour écourter un tout petit peu daay moo house boobu xoolal wiri wiri kañ la jeex tournage bi ñu diffusé ko parce que dañ daan monté rek jàll monté jàll hmm. monté jàll bi ñu fiy jeexe boobu la ñu toog donc engagé nañ bale c'est-à-dire door nañ bale mhm. ci biir wiiri wiiri wiiri wiiri jeex ma toog loo xam ne lu yàgg la ma ne waaw gaañe xanaa du ñu man ci lii nga xam ne ni jot nañ ko def mm-hmm. ah ma jéem téléphoné pour jéem a nemmeeku jotuma ci kenn mm-hmm. téléphoné jotuma kenn ma ne waaw xanaa gars yi di changé numéro te yëguma ko ma ni noo comme man privé la yore mm-hmm. xaaral ma envoyé leen message gis nga privé boo ko yoree envoyé ci message sa numéro day feeñ. donc donc gisuma kenn ku ma tontu ñoom ñetti ñëpp. Hmm. waaw amul renseignement bu ma ci am mieux ma yónnee dafa jóg bu daaree coach mhm. yóbbante naa ko man ko puisque yaa ngi nekk ñoom di tourner mee sax am na ñeneen ñoo xam ne ni yeneen artistes yoo xam ne ni yóbbante naa leen may leen boo leen ma gisee sama gaañi ngeen wax ko ne ko Euh, man day euh, maa ngi toog di xaar mhm. dama xamagul aw ma dara ma wóor ci li kii xam kooku na ci tonet na ma ah ñun day seddi nañ ñi hmm. man ko abon ah mu ne waaw mu ne ko man kon war naa jot suma sumay dërëm mënu mhm. ma comment man ko déedéet ba léegi mu ne ah jot nañ affaire bi hmm. looloo tax bi may wax te ki may interviewé ne ñun dañoo fort ci weewu béy mhm. man kon naa la tontu ci weewu béy loolu moom maa ko wax loolu <laughs> def def naa ni déggu nga kii waaw donc je n'ai rien dit de mal waaw kay ma ngoog dañ ko comprendre que j'avais juste besoin de cet argent mhm. pour mes occupations personnelles am na njaboot mhm. am soxna donc euh, li may liggéey njaboot bi la ak soxna yi. ak képp koo xam ne nii sa wërsëg mi ngi ci. Mhm. donc ñu ñàkk ma koo jox. toog ba ma leen di laaj. léegi jàppuma kenn téléphone jotoo kenn amul kenn ku la ci woo en fait c'est ça le nœud du problème. Mhm. mais man billahi wallahi taalahi liñ ma yoreel ci Sénégal bii su ma ko doon topp tey je serai très riche. man damay liggéey ak yow sax bàyyi la ba nga feex waaw je ne signe pas de contrat mm. parce que moo signé ak yow contrat rek dugal nañ yoonu police wala tribunal mm-hmm. pour man c'est comme ça que je réfléchis peut-être c'est une manière naïve mais en tant que professionnel je ne veux pas avoir des démêlés ak les sénégalais woo kenn ku bokk ci njaboot parce que yàlla mi tiim Rose Rose li may dal nga xam ne fu nekk lay génn dem tourné fa mu dal leen ñoom ñuy dem fu ne dafa tourné